Assane Madické Niang ak Macky Sall tey dañoo dajee Mbàkke loolu noonu ñoom ñaar ñëpp soxla réew mi loolu est-ce loolu wóor waaw loolu de moom daanaka yàgg naa am ci campagne ndax élection yi nga xam ne jàlloon yooyu yëpp ñu mel noonu am na ci ba tax na jamono yoo ne si am na benn. Euh, ba Tiwaan kon lu mel noonu amoon na kon daanaka liñ ci gën a sopp daal ba ba ràññee ko ci ba tax na mu am sécurité loolu daal jàpp na ne bu fekkee ne am na ci moom man naa bañ a am benn problème sécurité moom bu fekkee yéen ñun sécurité boo xam ne si doy na tey tamit euh, loolu lépp daal mi ngi aju ci sécurité mais sécurité bu doyul moom mën naa am violation waaye tamit ñu gën a bàyyi xel xam ne ñu ngi ñu ngi lancer message pour Sénégal képp koo xam ne si ña ngi koy def mitin euh, nan fa jéem a yónnee sécurité bi mu doy tey tamit loolu bokk na ci li nga xam ne si moo nekk kaaraange réew mi ndaxte buñ mënee buñ bëggee di boole élection yi ba noppi euh, ak tamit euh, muy am ay violence citoyen yi ci gaañu ak tamit di gaañ ay blessés comme li ñu daloon ci 2012 ci élection yi ba tax na am na kuñ frayen ci Tivaouane kon ndax loolu ñu bari naqar nañ ko ndax deret dafa for ndax képp koo xam ne si sa bakkan na ci ñooña dana am naqar lu goo ni si